ginnaaw bi ñu sallee sante yàlla julli ci yonante bi salallaahu alayhi wa sant sant suñu ñaari waajur sant suñu borom kër ñi ngi sant la président Souleymane Ndoye di ko ñaanal yàlla jotaayam bi yàlla bu mu doon suñu mujj jotaay yàlla na ko def ay at yu bëree bëri te at mu ñëw gën a daax parce que comme gàmm la ñu wax tey di juddi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu jot ndigal mu jógee ci sëriñ bi kenn ku nekk na ko defee këram mu dajale njabootam tey di ko feetee ñu koy ñaanal yàlla lépp lu mu ci def rek yàlla na ko man bu déwénee di ñaanal yàlla soxnaam Adja Maguette Ndiaye parce que dañu wax ne góor gu jàmbaar goo gis rek jigéen ju jàmbaar nga ca wetam di ko jàppale ñu ngi koy sant di ko gërëm ñun njabootam gi ànd ak moom ci politique ndax yaatalal nañu ba mu yaatu kon nag président Souleymane Ndoye lu mu def ren rek bu déwénee yàlla na ko yokk ci barke salaatu faati di wax nag ne comme nii mu wax ne ñëw nañ nekk ci jamono yi Covid bi Covid bi nag ku ne xam ne impacté na lu baree baree baree bari mais tamit yàlla def na ci sutura bi nga xamante ne sunu gouvernement teg na ci loxoom jàppale dam ñu war a jàppale. jamono ji actualité bi léegi mooy xale yi nga xamante ne ñi ngi jël émigration clandestin bi muy nekk loo xamante ne lu doy waar la lu doy waar la may ñaax rek sunu njaboot yi leen wax ne gëm sa bopp rek àdduna foo man di nekk rek da nga war a gëm sa bopp fi li nga xamante ne moom la la yàlla séddee moom nga am defar ko nga di ko demee marché soo ko defaree rek bu neexee yàlla mën nga cee am lu sa njort ñuy ñaax rek sunu doom yi di leen wax ne leen tukki jaar ca yoon la waaye boo jaaree ci ñal war rek doo yegg fa nga jëm kon nag jeunesse bi ñu ngi leen di interpellé à que ñu toog ci réew mi ñu dëkk gëm seen bopp daan seen doole borom karaw gu ñu ñàkkul dara kenn ku nekk lii sa wërsëg bala ngay génn àddina di ci jot